jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal Cheikh Mountakha Mountakhal Bachir yàlla saa borom saxal ko fi ba yéene ji mu am mu yigée liggéeyal Serigne Touba mu yeggale ko ci jàmm di wéyal liggéey bi liggéey bi ñu fi indi muy euh, le club cinquante 50 de préférence nationale ànd ceeg le président Abdoulaye Sylla en mars pour 2024 euh, incha allahu rabbi ñun mooy suñu président mooy suñu candidat incha allah ci liggéey boobu la ñu yónni ñu bépp point d'accès ci màggal gi ñu jàppandal fa tableau yi def ci slogan bi daw ndànk dal ndànk incha allahu rabbi ñu war koo def ci ñeenti xibla yëpp dëkk bi tàmbale ko fii nga xam ne mooy ndindi sëñ fàllu incha allahu rabbi ñu ñu ci ñaan njàppandal ànd ceek sama équipe bi nga xam mooy mooy jeunesse bi nga xam ne nii ñoo nekk biir Touba di di jeunesse C50 de préférence nationale ñu ci ñaan yàlla suñu borom dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan 2024 comme niñ koy woo di ci woot di ci woo ndaw Touba yëpp ñu ànd ceeg ñoom liggéey ceeg ñoon ndax xam nañ ñi yaakaaru dëkk bi mu ngi ci loxo yi président Abdoulaye Sylla 2024 incha maa ngi tudd Serigne Cheikh Diop euh, dëkk Touba. yàgg naa di ko wax comme tey boo amee koo xam ne tey dalay jàppale rawatina ku mel ne président Ablaye Sylla mu dëkk fii ci Touba ñu bokk benn koñ boo xam ne muy looyoo ñu gis lam fay def lépp muy que sëkk bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da koy def ñu ciy teg suñu bët yi nga xam ne muy barabu sëñ Fallou be ak barabu sëñ Sidi Mokhtar bi ak euh, boo xoolee bàq ya mbaar bi mu fa def ni mu fa toll. ak yeneen ak yeneen moo xam ne mu koy def lu toll 2000 personnes mu leen di employé donc loolu kon sëriñ si Touba ñoom dañoo war a taxaw jàppale ko ndax buñ ko jàppalee incha allah yaakaar naa suñu bopp lañ jàppale lu tax ma wax loolu nag mooy que nit ki boo ko jàppalee ba nekk dara moom dina la def dara def dara googu nag mooy tax tey Touba sëriñ bépp ñiy dem ci gaal yi di dee di géej gi yëpp ñu ñu mu deñ donc kon tey dañoo ñëw fii pour euh, takk affichage pour que pour. képp koo xam ne day ñëw rek mu bu ko gisee xam ne tey Ablaye Sylla moom président 2024 incha allah moom la ñu bëgg mu nekk ko tey nag ñi ngi ànd ak Baye jàppale ko ci liggéey bi te lépp loo xam ne soobu na ci rek incha allah ñun pare nañ pour def loolu kon maa ngi woo képp koo xam ne tey ci sëne si Touba bi maa ngi lay woo nga ñëw bokk ci groupe bi c cinquante bi ba noppi tamit di leen wax ñu dem wuti carte d'identité pour que tamit dina dina yombal lu bëree bëri tey waaye waxuñu nga ñëw ba noppi amoo carte d'identité donc dana cose problème yu baree bëri donc damay woo service bi ñu ñëw jàpp ci liggéey bi liggéey bi nag ñett yi ñoo ko yor mooy ki yor doole ak ki yor xel ak ki am xaalis donc ñett ñooñu bu ñu àndee tey lépp luñ bëgg a def dañ ko def waaw kon di jaajëfal waay yëpp baax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 صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد هند مقلد salaatu lazi anumu abdan loo bi ala man bi li xaada sawan bila kadar fasaatu xayril xalqi abdat qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar rabitu raban lam yakun